waaw mbokk sama TV bi tey ba tey ñu ngi ci foire ñu ngi ñëw ci beneen box box bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi tur bi nan la. Boubacar Diallo. Boubacar Diallo fii mooy ban box ak ban bergerie. fii mooy box 157 fii mooy fi Galle ay gale Galle ay naabe mooy lan. Galle ay naabe dañoo dellu ci càmm gi xam nga ñu ne ay pël lañ. waaw foofu lañ jëlee turu bergerie mooy kër càmm gi ci ci wolof. waa mooy tekki kër càmm gi waaw. ngay pël xam naa ne càmm ci yow mais laadum càmm ngeen toog nga am tout différence. lan lan kañ nga dugg ci laadu. waaw laadu bi ba ma duggee léegi yàggul moom. foire rëyit bii passé ci laay doog a jënd laadu. waaye waaw 2019. waaw 3 ans. waa waaye daan naa yor ay xaru ornet leen toppatoo ba ñu rafet. ba ku ko gis ne ma yow boo yoree laadum dina rafet ni ngay def sax xaru ornet looloo ma gën a yokk sax ma dugg ci laadu bi. foo ko daan yoree fii Thiès. waa fii Thiès maa ngi dëkk Kees Penc Alinguer waaw ma Lamine Senghor. nan nga def ba def transition bi. ci diggante xarul yi nga yoroon xar nga jaay say xar uti ay laadum wala nga def. non damaa ut xaalis jëndi ay xar laadum des ak xar yi ma yoroon di leen wàññi ndànk-ndànk ba keroog ñuy jeex ma des ak laadum yi waaw. lan nga commencé ci laadum tëng wala jeune mal wala. non tëng laa tàmbalee man moom dañ may tooñ naan ma péage nga jaar damaa dem fekk tëng bu sotti ñi xam papaam xam yaayam ma dem jënd ko indi sama kër muy doomu raan doomu la grand direct laa moom moo ñëwee après kan moo ko tëbal. waaw daa ñëw su may nuyu tonton Sidaat moo ma ko jox ne ma bu tollee tëb nga indi ko ma tolli tëb may ma tëb ci moxan. ok waaw ba ma ko tegee ci moxan ci laa am doom yi. kon famille fi nekk ñu moom moo leen. waaw moo leen jur ay ñoom ñëwul ay doomam moo ñëw ak ay sëtam. Oh, waaw non famille yi moom boo leen gisee xam ni euh, euh, xar mi leen jur naanaan la. kon famille yi fa euh, tëng boobu nga jëloon moo moo leen jur du femelles yi commencé nañoo taawul ay espoir lañ benn tëng bi ma indi nii mooy seen taaw ñi ñi àndal seen i raq lañ seen yaay ma nga kër ga mais instant bi ba léegi amagoo maal boo sam non am naa maal maal bi nekk ci bâche bi mooy Baba Galle di doomu jooni jooni ci côté yaayam benn seexu espoir du Sénégal lañ jël jox ko Grand Rane moom bu jigéen ñi jël bu jigéen boobu jox ko jooni moo jur maal bi maal bi ci côté yaayam raan la jooni jooni di papam maal bi fu mu maal bi bergerie arc en tamit laa ko jëlewaat. waaw. Ah, kon yow daal bi génn koo fa yaa ngi ci saawu grand raan ba léegi. saawu ba léegi. instant bi moom ñaata la maal. bi mi ngi ci deux ans. waaw lan moo tax andi woo ko maal bi day yëngal dafa soxor te day mbëkk femelle waaw loolu tax ma bàyyi ko kër ga indi ay doomam li ma indi yëpp maa ko juddule waa yëpp ci sama loxo la juddoo ci diggante 3 ans yi waaw ci diggante 3 ans yi laa ko judd est jaay wala yaa ngi ci production ba non maa ngi ci production ñu bari dañ naan du jaay bëggul xaalis waaye xam nga waaw dama bëgg a xool te am yow te après nga loo jaay bañ a topp xaalis bi si bañ. donc euh, ñetti femelles yi ak ñaari tëng yi boo demoon tey bergerie yi benn chien mâle ak benn tëng moo fi nekk. Euh, indi naa ñaari espoir ak benn tëng ak benn mbote ak waaw instant bi boo demoon kër ga lan nga fay fekk. kër ga dese naa fa seen yaay ma fa amaan naa fa ay tëng amaan naa fa ay espoir mâle bu mag tamit ma nga fa waaw. waaw maa ngi fa yaa ngi ci biir élevage. waaw maa ngi ci biir élevage damaa laqatu woon nag toog. yaa ngi doog a ñëw foire yi. maa ngi doog a maa ngi doog a exposé foire moom waaw. noo gisee euh, exposition. macha allah foire moom ku fi ñëw ak niñ ko innové ni ñu organisé macha allah rek nga ci mën a teg waaw neex na trop macha allah. kon daal yow fan nga bëgg a dem ci élevage. non élevage moom bëgg naa fi ñuy dégg champion yëpp incha allah ñu dégg ñëpp ci liggéey boobu lañ nekk. mais yow yow da nga bëgg a innové élevage pëli de. parce que gis naa euh, tur tur tur bergerie bi mais maal bi it. Baba Galle femelle bu mag bi tudd Néné Galle. Ah, da ñëw pour nag innover ci biir pëli ah. élevage laadum. fekk fi ay may ay jeyna ay Kumba Gogo waaw ñoo ay alseyni damaa ñibbi rek. kon kon bergerie ay naabe nag wuyu na kon xam leen ni ah, waaw yow innové nga. Euh, numéro bi ku la bëgg woo waxtaan ak yow ak euh, bi. Mhm. maa ngi Penjaal Thiès. quartier Penc alinger ci côté Diakha non rek numéro bi 77 271 52 87. waaw. dégg naa pël kay eyi bandiraɓe haalpular mbeɗe salmina moon moni foof inde mum yettode moon ko min boubou diallo bergerie galle aynaɓe mbeɗe hoɗi ɗo eyde kees quartier penca alinguére ok jarama